waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak la ca gën a fës juróomi doomu aadama ñàkkoon seen bakkan fanweer ak juróom jële woon ci ay gaañu gaañu yu metti loolu nag euh, di accident wala boog bilangu accident bi tukkee woon ca yoonu bi ñu naa jamono ji ñuy àddoo ki jiite conseil départemental euh, bu diwaan ba di Mamina Camara ma ngay wër ca bërëb bu fajukaay euh, di xool ña ca jële woon ay gaañu gaañu accident yi ak jamono jéeg na mu takar naa passé tax nañu samp ab laaj ana dogal yi nguur ak Sénégal ne woon da koy jël ci atum 2017 lim ba nekkoon fukk terewul ba tey askan wi di wéy di ñàkk seen bakkan ci yoon yi ci mujj di Bignona jàpp Sine daanaka fukki doomu aadama ak ñett ñàkk nañ ci seen bakkan ñeneen ca jëlee ay gaañu gaañu ci kanam tuuti daañu ci dellusiwaat ak leerali Ibou Diouf lu jëm ci wàllum politique ak coppite yenu andi ca secrétariat euh, national bu parti démocratique sénégalais ñu nekk ci diwaanu Ndar Géej nekk ci parti bi euh, weddi ko ba tëdd ci suuf wala bokk ne ñu ànduñu euh, ci dogal yi maître Abdoulaye Wade jël euh, te disoowu ci ak ñoom noonu itam lañu ko weddee ci gox yu bëri yu nekk ci Sénégal te bokk ci parti bi Mame Birame Diouf Mame Birame Diouf dellu siwaat na fi ñu ne sax bu nu sàgganuwulee bu fekkee ne mbir mi dañuy wéy di ko jëfee dina am ñu ko wan gannaaw kañ ci joxoñ baaraamu tuuma ne ñu nag Karim Wade moo ne gannaaw baayam ba tax mu jël euh, yile dogal ci diwaanu Njàmbur moom jamono ji lañ fay waxtaanee mooy nawet bi ak jafe-jafem nee ñu li rek mooy ñaareelu taw euh, ba tax na itam foofee ca diwaanu Njàmbur ndox ma euh, ma ngay dugg daanaka nag ca askan wa indi leen ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu na Fall moom lañ ci àndal gëstu bés bi ñu jagleel ko lu jëm ci liggéey yëpp photographie jamono ji nag xam ngeen ne téléphone portable bari na waaye nag lu ci mën a am Habib fay euh, dem na Grand Dakar xooli euh, photographie ak itam labo ya ñoom ñëpp nag nee ñu euh, jamono ji ba tey ñoom bàyyi wuñu seen ëpp liggéey ña ngay wéy di ko def naam am na ay jafe-jafe li ci yenn kaay yeeg du Mohamed Ndiaye ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee rafetlu seen ànd seen kóolute ci télévision Futur Média xibaar diggu bëccëg gi dañu koy doore ak accident bi amoon ca Bignona te lu toll ci juróomi doomu adama ñàkkoon ci seen bakkan juróom benn fukk ak juróom jële woon ci ay gaañu gaañu fanweer ak juróomi nekkoon ci ay gaañu gaañu yu miti Mamina Camara moo jiite conseil départemental ba ñu ngi lay nuyu waaw maa ngi leen di fay di leen sant bu baax TFM euh, mm-hmm. voilà mi mal ne euh, Mamina Camara demoon nga euh, seeti ñi jële woon ay gaañu gaañu ci accident bu métti boobu amoon ci yoonu Bignona bi waaw maa ngi nii si hôpital régional bu Ziguinchor parce que mm-hmm. ñëpp la ñu indi fii am na ñi des fële Bignona dañu néew donc fii la ñu indi ñu xam blessé grave yi fii ci hôpital régional foofu foofu lay communiqué nii en direct à l'hôpital régional de Ziguinchor. Mhm. waaw situation bi jéggi na dayoo. et vraiment mais euh, dem nañu seeti maladie blessé yi donc am na ñu xamante ne vraiment boo leen gisee seeram dafay daw. Mhm. Euh, ay blessé grave grave ay xale yu ndaw ah, ay xale yu ndaw ay étudiants ay jigéen ay góor vraiment ajaar yi dafa métti. Mhm. mooy ngeen may ma dénoncer d'abord le comportement des chauffeurs. loolu moom ak kawe bi ñu ko nangu. ay xale yu ndaw ñu leen jox ay bus ah ñuy daw ay ay ay euh, vraiment d'une manière inconsciente. Mm-hmm. di loolu ay doomu adama adama loolu quand même il faut que euh, état bi jël ay mesures fermes par rapport à ça. mu mm-hmm. même mënuñu continuer fii Sénégal pour leen ndar ci yëpp ay accident accident te vraiment euh, sanction amul. Mm-hmm. loolu quand ay xale yu ndaw ñu leen jox ay bus au temps de Abdou Diouf boo amul 30 ans doo dawal ci Sotrac. quand même ay xale yu ndaw ñu leen jox du ñu nelaw. di di lay ay nit comme ça ah xoolal ay xale cette jeunesse de Bignona ah war a dem vacances ñeneen ñu war a war a passé examen ay xale yu ndaw ñu ngi nii ñeneen ñi gaañu nañ ñeneen ñu ngi nii blessé blessé grave. Mm-hmm. ah loolu dafa métti. Mm-hmm. Euh, dafa métti. Mhm. Euh, Mamina Camara ñu koy sant di ko gërëm mu doon àddoo fale ca diwaanu Bignona foofee niñ ko waxee accident bu métti bi amoon ca yoon wa ci ay bés bi rek la daanaka euh, lu toll ci juróomi aadama euh, ñàkkoon ci seen bakkan fanweer ak juróom jële ci ay gaañu gaañu accident rek ndax itam barki biig foofee ca diwaanu dëkk bu ñu naan Diop Ndofène itam ca diwaanu Sine nañ seen bakkan ci accident boobee euh, tax na ñu samp ab laaj ana dogal bi nguur ak Sénégal jëloon ci atum 2017 euh, booba ba tey accident yi di wéy ndax daan yi moo diisul ana lan moo ko waral tontu yi dañ ci ànd ak Ibou Diouf mu indil ñu ci ay leeral. jàpp bi ñoo na jaare ko Fatick fàttewuñ tamit bët gànnaaru réew mi accident yi ñu nemmeek ko fan yi mu gën a metti lool bés bu nekk nga dégg accident loo rekk tax ñuy laaj lan moo waral jafe-jafe yi lu tax li ni mel mënu fi jóge lan moo tax kilifa yi nga xam ne saa su nekk ñooy saytu lu ni mel mënuguñu xam lan mu waral li ni mel bés bu nekk ñu limal ñu ay bàkkan yu rot bàyyi ko ci yooyu la accident ñu ne nag daanaka bu weesoo feebar ak ñi nga xam ne rek ñooy xarook leneen li nga xam ne rek moo bàyyi ko ci wàllu accident yi bokk na ci liy gën a sonal askan bi fii ci réew mi. gis nañ ne rek kilifa yi at bu nekk dinañ amal ay programme di ñaax askan wi ngir lépp lu aju ci wàllu xeex lii di accident jóge fi terewul nag accident yaa ngi wéy di sonal ñi nga xam ne rek ñooy askan bi di ko gën a firndeel mooy l'accident yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci fan yee ñu génne ba ca am Bignona Fatick Kaolack ak ci yeneen gox yi fàttewuñu tamit ñi nga xam ne jëlee nañ ci ay gaañu gaañu yi metti te yenn saay taxawu leen dina faral di jafe li ko waral ñu ne yenn kër docteur yi seen jumtuwaay demewul li ni mel at bu nekk kilifa yi xayma lu toll ci juróomi téeméeri nit ak ñan fukk yu ñàkk seen bakkan ci yooyu la accident mu ne day te atum 2017 jëwriñ bi ñu dank lépp la ju ci wàllu transport fii ci réew mi wala dem beeg dikk bi jaloon may dogal ñu xayma woon ko ci lu mat fukk bokkoon na ci rek ñu ne bépp woto boo xam ne dañu jàpp ne dëppoowul ak yoon wala amul visite technique moom dinañ la yóbbu fourrière ak itam ñi nga xam ne seen xam-xam dafa ci jëm ci wàllu woto di saytu yooye ak li nga xam ne mooy mutation yi ñu doon defe Dakar ñu fexe ba yeneen gox yi mën ci jot lépp lu aju ci jël oto defar ko ngir mën ci transporter wala sax nga ci yóbbu ay jumtukaay kooku la tere woon nañ ko neewoon nañ tamit ngir nga mën a dawal li di transport urbain foog nga am ñaar fukki at ak juróom fexe tamit ba bépp luy daw ci kaw tali bi ñu amal ko ab numéro fàttewuñu tamit lu aju ci wàllu casque ak tere téléphone ci li nga xam ne mooy ci woto yi booy dawal ci kaw tali bi loolu nag terewul bés bu nekk ñu gis ay njombe ñu ne ana lan moo waral li ni mel ñu ne nag fow ñëpp takku ku ci nekk dugal ci sa loxo bu fekkente ne lii dañ ko fi bëgg a jël. Ibou Diouf ñooñu ñàkk seen bakkan ci accident yi télévision Futurs Médias ci i mbokk accident yooyu euh, buñ ca jógee dañuy wax lu jëm ci wàllum politique euh, coppite yi ñu andi ca secrétariat ba indi na ay coow foofee ca diwaanu Ndar Géej la ñu wax rek mooy euh, du nu ko nangu tey du nu ko nangu ëllëg ndax président Abdoulaye Wade ma leen jiite dafa jël ay dogal yoo xam ne waxtaanu ca kenn ñoom ndaw ndaw yooyu te bootu ci parti démocratique sénégalais nee ñu ñu ngi wéy ba tey di des ak euh, Ahmed Fall Braya mi seen coordonnateur départemental maam Dew Fall kenn la ca ñoom kàddu yi euh, mi ngi ko dénku seeni jëba Kabib sekk toggal ñu ca ndax ak li ko wax. ñun waa Ndar ñun coordination départementale bu saint wi dañuy naqarlu loolu di wane ni ñun ànd ñu ci tey ànd ñu ci ëllëg te dañuy taxaw ci bépp fànn. ngir wane loolu ndax coordination boo xamante ni teguwul ci lépp lu lenn lu dul yaama neex bu fekkee ni ay nit ñoo xamante ni dañu doon rayante seen dund yëpp ay seen ndaw seen alal seen liggéey lépp ñu jox ko parti bi tey ji am ay nit ñuy profité ci mag gi nga xamante ni Maître El Hadji nekk ko mag di jaar ci ginnaaw di manipuler ngir lan ay soi-disant responsable lañu benn mérite la ñu am wala moom la ñuy woote ni moom la ñu am mooy nee nañ yooyaay ay xeetu Karim Wade lañu ñun waa Ndar benn nanguwuñu loolu ñaar dañuy doole ji dëggal ni tay lañu ñu gën a dëggu ci PDS tey lañu ñu gën a ancré wu ci parti démocratique sénégalais tey la ñu gën a ànd ak Ahmed Fall Braya te moom mooy ki nga xamante ni moom mooy ki mën a wax ci turu PDS fii ci Ndar képp ku nekk ci ñun mën ko dégg mën ko jëfandikoo. foofee ca parti démocratique sénégalais la ñu des rek coow la nag ne ñu kenn du kenn ku dul Karim Wade ak kii ñooñam du samay kàddu ñene ca parti ba yàgg fa yàgg topp ci ginnaaw Abdoulaye Wade dañoo xamle lu ni mel ñoom it ne ñu ànduñu ci tax na itam ñu sampab laaj lu ni mel bu wéyee ndax du am ñu wan ginnaaw parti bi tontu lu yàgg Mame Biram Diouf. poom carte rek di maître Abdoulaye Wade di ko séddale ku ko neex xalaat googee monte am na ñu bëri ñu ko jege woon duñ doon des gannaaw di défendre maître Abdoulaye wàdd ak doomam Karim wàdd ay at sax gannaaw ba parti bi ñàkkee élection yi ci atum 2012 ci ancien collaborateur am yooyee nga xam ni kon jot nañu jóge ci euh, PDS moo xam lu nga xam ne nii mënuñ ko xamle mbala sax di ñaawlu parti bi na muy doxee jàpp ni rek ne Karim mooy bum di bum bi mbala it ñu ñàkk leen boole. ci activité ya nga xam ne nii moom la ñuy amal ñu mun ci li maître Ousmane Ngom Modou Diagne Fada Aïda Mbodj maître Souleymane Ndéné Ndiaye ba ci maître Madické Niang candidature Karim Wade ci élection bi ñu jugee maître Wade kon bëggoon loolee am waral ñu bëri naqarlu ko ci biir parti démocratique sénégalais Oumar Sarr coordonnateur PDS ba woon du doon des gannaaw di dëggal candidature googe bu Karim Wade jàpp ni lu mën a nekk la te sax di dal ci kaw conseil constitutionnel ak président Macky Sall tey jii maire bu Dagana ñàkk postam numéro 2 boobee ci biir PDS gannaaw nag ab coppite goo xam ne ni am na ci secrétariat général national teewaayam ci dialogue national gi nga xam ne nag président Macky Sall woote na ko ñu jàpp ni kon lu maître Abdoulaye Wade métti lu lool la. bëri na ñeneen ñoo xam ne nag naqarlu nañ tërlin nga nga xam ne dañoo jàpp ni moom maître Abdoulaye Wade ndogal gu mu jël ci ñu bokk ci biir secrétariat général national bi Babacar Gueye ba ci maître amadu Sall may bëgg sax poste yañ leen jox ci biir kuréel googe doon ci ay adjoint ak yeneen sas yu ñu leen jox ñu teggil leen ko lii am nag ña nga xam ne nii ànduñu ak Karim Wade di ñaawlu na muy doxee ak la muy def saa su nekk ci biir PDS di yàq kon doxalinam ne du kenn ku dul moom mu doon loo xam ne nag mu ngi yóbbu PDS ci ab ëllëg gulandam lool parti bi kon nar di ñàkkaat lu bëri ci biir langue politique bi. Mame Birame Diouf ñu sant la gërëm la wax lu jëm ci kaaraangeeg jur gi ndax ñi di aar suñu moomeel ñoom rek la gis rek mooy lu jëm ci tabaski gi kaw gi am na dëkk yoo xam ne daanaka njaboot gi defuñu tabaski maanaam rendi wuñu benn xaar bokk na ca la ko ko waral ñàkkum xar ñu ne nag loole am na ci loo xam ne gis nañ ne moo ko wundu mooy yenn ci euh, borom kër yi dañuy ragal sax yari jur ci seen i kër ndax dafa am ñoo xam ne ay samba booy lañu euh, dañuy dem fekk leen ca seen i kër nangu seen i jur léeg-léeg sax ñu faat seen i bakkan euh, dañuy ànd ak Ibrahima Jàmme toogal ñu ca ndukkumaan borom kër yu nga xam ni laata ñuy am seeni xarum tabaski ay coono yu dul jeex la ñuy dajje bu ñu sañoon yaral seeni bopp seeni xar waaye nag ñemewuñ ko ndax ñàkkum kaaraange gi nga xamante ni dambee na yenn gox yi ak càccum jur gi ànd ak ngànnaay loolu nag waa mouvement aar sunu moomeel ñëwoon fii ci Latmingué ginnaaw tabaski ñawlu ko be fu ñaawlu yem. gis nañu ñoo xam ne borom kër yoo xam ne rayuñu gàtt ren gis nañu ñoo xam ne ay bëy la ñu jënd gis nañu ñoo xam ne ay bëy yu jigéen ay xar yu ëmb la ñu rey loolu bu dee day am ci am réew dañ koy méttu am na ñoo xam ne tabaskiwuñu parce que amuñu lu ñu rey te loolu buy am lii ñu explique fii moo koy waral bokk na ci mooy bu fekkoon ku nekk am nga yaakaar que ni boo yoree sa gàtt mën nga koo yar ba tabaski jot nga rey ko kenn du am problème mais amul kenn ko am sañ-sañu yar xar di xalaat tabaski li tax mooy danañ ko rey ba pare danañ ko jël ba pare rey la. ci Kër Niang benn dëkk ci biir commune bu Latmingué am nañu nga xamante ne dund nañ li ni mel. dañuy yeewi samay xar samay xar lañ jël ñeenti xari arfan la ak benn bu jigéen. waaw xar li ñu war a tabaski. mbootaay gi nga xam ne nag lépp lu ko soxal moo di lu sàmm moomeelu béykat yi ak sàmmkat yi du ñaaw lu bu baax a baax li daal kii di commandant foofu de ci Koupentoum. mais liñ ñu yàgg di wax que ni am na ay bande yoo xam ne am nañu armu mat nañu am nañu ay sëriñ am nañu ay awaka ñi seetaan lañ ci réew mi moo indi tey njureefu ñii lay commanda bële du lu ñu rafetlu. fii ci Kër Niang mbootaay bi la doon sàmmonteeg béykat yi ak sàmmkat yi def nañ li ñuy duppee diricin ngir dàq lépp lu dem ci wàllu càccum jur ak ñaawteef yu bëri li ñuy nemmeeku fi nga xamante ni moom moo di monde rural bi. Ibrahima Diame ñu sant la gërëm la des ba tey ci biir mu jóge ndukkumaan dem ca Sine suum dëkk bu ne ca Foundiougne euh, foofee askan wa ñoom maral moo leen di sonal ne ñu forage ba leen daan may ndox atum 2015 la taxaw ndax yi jafe-jafe boobu ba tey fu ne la dugg ngiram ndox mënu naan ca siin lañu fay fekk Aminata Goudiaby mu ànd ak Fally Gueye ñaxtu nag lenn rek la ñu bëgg am ndox mu doy ci ni mu waree forage yu sum ba nga xam ni moom moo doon alimenté 15000 habitants ya yeewoo dëkk boobu moom moo paan boobaak léegi def ñeenti at ñu ni fi mu ne dañu sonn loolu te itam situation bi dafa gën a doy waar. dafa metti nga yeewu 4 heures du matin bàyyi sa kër bàyyi sa njaboot bàyyi sa lépp dem nekk si teen bi lu mot 2 heures de temps yaa ngi ut ndox da yendu si teen bi doo am ndox coono sum bi dafa yàgg. forage bu pon paan depuis 2015 ba léegi loolu mënuñ koo accepter ndax dafa metti nan nga mun a xalaatee dem ci hôpital ànd ak jigéen muy matu yaakaaroo fa ndox yi duñ nga yendu sa paan wala nga yendu sa bi nag yóbbu ndox metti na metti na lii la waa sum yi di dund fi mu ne nii nag robinet yi xelleetul foofu ci sum ba tax na askan wa ci teen yi la ñuy mujj dem di rooti te teen yooyu sax ne ñu ndox moom yi génne taxul mu set képp xam nañ couverte bi ko tëj ngelaw fu mu jógee dugg ci la ñuy naan ci la ñuy sangoo ci la ñuy fas yi ci la ñuy sangee fas te ndox mi doyut population bi nag li ñu waroon a def def nañ ko ñu gas teen gas nañu ay teen ba sonn. fi mu ne nag ñu ni ab solution dafa jot nguur gi wut ko ci te loolu nag ñoom ñu jàpp ne mënatul a xaar. nag président def raccordement bu ñu laajee ñu naan nu seen napp dafa sale bu fekkee ne dafa salé tam solution mun na ne parce que ñi ñu gën nañ solution te ngi dund ak ndox parce que déjà problème maladie jaaree ñu ngi fi. ñoom ñi nag ci mbedd sumi yi la ñu doon def seen doxu ñaxtu boobu ci naaj bu tàng doon yuuxu wàllu ndaxte nee ñu problème bi dafa yàgg te ba léegi kenn gëstuwu leen. Aminata bi ñu jógee Sine dem Njàmbur foofee itam ak euh, taw euh, barki démb bi dina fay jafe-jafe ne ñu ñaareel bi taw dong la xaat ña ngay doom ci jafe-jafe lu jëm ci mbir mi euh, ba doxantoo ba ci lu mel ni marché central wala sax place Yacine Boubou da ngay gis ne ndox meeg taataaye poto poto yi sonal nañu askan wi ca Njàmbur dañu fay fekk Thierno Fall. ñoo ngi fii ci marché central bu Louga nga xamee ni lu ëpp ci koom liy bàyyikoo ci diwaan bi fii lay jógee waaye tey jii fii moom bu nawet bi xasee tàmbali rek ñi koy jëfandikoo daal di tàbbi ci ay jafe-jafe yu metti nii leen dëkkee nawet daanaka fi ñu toll at mu nekk lii yàgg naa ak ñoom fi ñu toll nii ëpp na fukki at di dem saa bu nu bëggee lii dañ fi ñu toll nii bu ñu ko waxee du tax mukk ñu wuyunu te lii baaxul. marché bi yéen a ko gisal seen bopp gis ngeen t hivernage bi ñuy dund boo sol mu yàqu doo am foo jaar da ngay jéggi bay dee dañuy fay li ñu war a fay lépp di fay mel di fay place di fay yëpp te gis nga amuñu fu ñu taxaw seen place gis nga ni mel xat bay bëgg a dee. tali yi wër jabi tey ji dañoo ŋàppatiku ba bu tawee fépp taa ndox ba kenn du fa mën a jaar. sunu tali bii gis nga ni mu mel yéen a ko gis kenn wérante ko. tëli bi te route de Koki bi tamit c'est la même chose tëli bii ci gannaaw te ginnaaw Senelec c'est la même chose li nga xamante ni ñoo koy defaree tëli yu bees yi nag mën nañoo jàppale ci tëli yi ñu defaraloon ko mu baax ndax ci lañ di jaar ndax population bi fi lañ jëm si. jaaykat yi di ñaawlu salte bu bari bi nga xamee ni si moom la ñu nemmeeku ci marché bi nga xamee ni ñoom nee nañ ba ñu ko gëjee bale yàgg na. ndox mi amu ci dugal bu muy dugg amul dara lu ñu dugg te dañuy fay juuti maa ngi nii jël ko dara kenn tonni fi dara fi toll nii te lii lépp dafay war a jógee. tey bu nu mënoon am fu ñu ko assainir ba nga xam ni ndox bi du fi taa dina dem évacuer quelque part ah wala wala ñu assainir ko ça donc ndox bi du fi taxaw mais nii nii nii bu bu accéléré deux jours bu accéléré di taw euh, finalement kenn du liggéey. fii ci commune bu Louga donte tabax nañ fi ay tali bees bàyyi ko ci programme Promoville bi nga xamee ni si nguurug Sénégal jagleel na ko dëkk bi teewul njaw dese naw xam bi ndax daanaka ci centre ville bi tali foo ci jël rek dafa tajatoo ba bu nawet bi ñëwee fépp di taa am ndox na Fall ñu jóge njàmbur dellu si ci Ndakaaru wax ci mbootaay gi lëkkale investisseur yu Sénégal ñoom nag doon nañu amal lël bu am solo euh, fii ci Ndakaaru lëlëb ñaari fan la ñu dalal ci seeni naataango fukk ak ñeent lañu ñu ko bitim réew ñoom tamit ña ngay waxtaanee lu jëm ci wàllum euh, mbay mi lu jëm itam ci naka la ñuy def ba suqali koom fii ci réew mi ay sëtu pay jaafara ba club des investisseurs ak délégation européenne di firndeel ne ci réewum Sénégal réewum tugal yi seen xel dal na ngir mën ñëw fi investir am na stabilité sociale waaye ginnaaw loolu yépp am na yeneen ponk yoo xamante ne dalal na seen xel laaj gi samp nag mooy ginnaaw loolu lépp lan moo war a tax investisseurs étrangers yi ñëw di fi investir. réew doon na réew moo xam ne bu ubbeeku la pour nit koo gis ak fa nga mun mënti jógee ki mu doon ci biir réew mi wala ci bitim réew nga ñëw fi installé wu pour créer développer sa sa sa sa sa business. liggéey ñu am solo yi ñu def ci at yu wees mu indi ay résultats yi am solo gis ngeen zone économique spéciale gis ngeen agropole yi ñuy développé donc ñoom loolu lañ ñëw xool si xool nan lañ mën a def lëkkaloog suñuy entreprise locale. ba technologie bi nekk foofu en Europe ñu mën koy utiliser. intérêt yi bëri na ba tax nag ñu wax a gën a mën a promouvoir suñu ay investissement waxtaan gi am cet après-midi ak les investisseurs sénégalais dina tax ñu nas li ñu fas yéene def ak ñoom dem woon ko ministre l'économie pour que ñu mu joxaat ñu rendez-vous dans trois mois ñu ñëw woon ministre de l'économie lan lan def APIX mi yor. promotion investissement Sénégal ak investisseurs privés sénégal yi naka la ñu war a ànd ak les investisseurs étrangers. collaboration bi nag diggante Sénégal ak investisseurs européens yi nag lan moo nar a nekk njëriñam. le secteur privé sénégalais pare na mais parewul pour bàyyi rek ñu ñëw investir ñoom ñoom ñoom pare ànd ak ñoom bokk ci investissement yi bokk ci résultat yi am loo xam dafay des ci suñu Et ça, c'est la politique de l'État. L'État veut aujourd'hui mettre en place quelque chose de très sûr pour les nationaux. Sénégal ak deuxième phase plan Sénégal émergent wane nag ne réew mu attractif la ci wàllum investissement gëstu bés bi laal lu jëm ci wàllum photographie xam ngeen ne jumtukaay yu xarala yu bees yi tax na eh, dem ca studio wala dugg ca labo photo bareetut ci yenn ci gox yi eh, fu ci mel ne Grand Dakar ñu ne déedéet ba tey ci laboratoire yi ña nga fay dem di sotti ay photo ak yu ni mel liggéey la boo xam ne bari na lu ca yàqu waaye eh, taxul ñu deltu gannaaw gëstu bés bi abi fay yusu baw ñoom fa ñu toog janook jàkka ji foofee lañu samp seen labo bi Planète Photo lay wuyoo bëreetul benn yoon nga gis fii ci Ndakaar labo boo xamante ni day defar ay photo di ko tiire di ko génne ci jamonoy xarala yu yees yi ñu ne fii nag ñoom ñi di ci yëngu la ñu jiital rek moo di seeni bëgg-bëgg teg lale lii di koppar gi ca wet gi loole waral na itam ñu yeesalaat seeni barab gi ngir rek gën a mën a am dëgër laay ci wujje gi am ci xarala yile bu njëkk bon avec euh, ancienne technologie bi moo gënoon a dox ak kii bi parce que nouvelle technologie bi dafa yàq lu bari grand ci milieu photo bon surtout les téléphone portables parce que d'habitude dañ daan photo bu baax a baax a baax mais léegi photo yi demeetul noonu. non non non pellicule moom amatut pellicule léegi bon comme numéro yi lépp carte mémoire la aussi. ay petite cérémonie nga daan photo léegi nag phase analogique la. mën mën nga ci gën a gis sa bopp daal. li ñu jógee ci analogie dem ci numérique doon na loo xamante nit. lu leen gënal la gannaaw ba ñu toogee di waxtaan teg seen ataaya. non non non photo mënul dee xam nga comme ay photo day dee non photo mënul de gannaaw tey fi ñu toll nii cérémonie boo mën a mënti gis ci Ndakaaru wala ci Sénégal di nga gis ñu ne la foog mu am un reporter un photographe. photo c'est pas un métier boo xam ni métier bu kii la ko donc c'est un métier boo xam ni yow au moins war nga am le minimum de bagage pour nga mën ko affronter carrément parce que ñëpp lay soxla. Moustapha gis ne numérique bi sax anam bi mu ñëwee da leen gënal lii di métier photographie doonut loo xamante nit day naax saay. mais je m'en sors actuellement y a aucun problème des fois je je couvre des séminaires des fois on couvre pas mal d'affaires. ñoom ñu ne ay professionnels lañ ci seen liggéey tax nañ ci yëngu ci anam. bu jaar yoon ngir rek mën a am lu ñu dugal ci seen gafa gi naam léeg-léeg lii di clients yi xaw a raar tuuti waaye teewul ñu ne ñoom ñu ngi ciy génn bu baax. tàggat euh, yaram benn ponk la muy euh, mondial euh, basket ci wàllu góor ba ñu dëgmal fële ci réewum Chine Moustapha Gaye bi tàggat sunu gaynde yi ne nag moom gaynde yooyu noppi nañu waaye itam nee na faaw nag ñu daal di def seen kem kàttan rek ndax xam na ne ña taseel du ñu ñu ndaw ay jàmbaar tigi lañ ca la ñuy def ñu teew lu kàddu yeeg Maguette Souare Diallo Euh, message bi chef de l'état dañ koy apprécier à sa juste valeur ndax njiitu bi bu waxee ñun euh, sas la sas la boo xam ne danañ ko apprécier parce que ñun ambassadeur dëkk bi lañu bu ñu porté couleur du Sénégal euh, honneur la donc je pense que dinaa koy faral di wax joueurs yi benn message nit mënul porté plus que drapeau national bi donc dinañ koy fàttaliku ne bu ñu fi jógee dañu yoru drapeau bi dañ ko jéem a honoré le plus possible jafe na pour bu métti la nekk parce que ñooñu a priori ñoom ñooñu xaw a jiitu mais terewul bu ñu fa demee dañ def lépp lu ñu mën pour mën a am prestation yu baax. parce que objectif bi vraiment bi ma Babacar Ndiaye jox ak fédération bi c'est euh, préparer une équipe compétitive pour moo tax ñu commencé def ay xale ci biir pour mën a am euh, temps anticipé un kaddu yi nag euh, kii tàggat sunu gayndey basket yi mi ngi ko yëkkati ba ñu jébbal sunu raay réew ci teewaayu jëruñ bu ñu dénk wàllum tàggat yaram moom jëruñ ji itam dalal na seeni saa yu nu gëstoo euh, gis askanu Sénégal ci seen ginnaaw euh, ñu leen di jàppale di leen dëfal tatagal ak bàkk ñu teew lu Ba. Le basket-ball sénégalais bénéficiant d'une très bonne image. ma leen di xamal ni basketball euh, fii ci réew bu Sénégal dafa am ab nataal bu am solo boo xamante ni rek da koy def ci même réew waaye tam ci dëkk yi nga xam ne rek moom moo nekk ci tund wi li nga xam ne nag moom moo di bëgg-bëggu askan wi moom moo di daal leen gis ca kaw ci jongante bu mag bi nga xam ne rek moom ngeen na mu amal ci loolee nag ma leen di xamal ni du ngeen des ginnaaw benn yoon ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi dinañ leen topp ba ca cappaandaw gi tey rek ñaan ngeen daal di jël raw gàddu gi. leneen itam lu mat a bàyyi xel la moom moo di drapo bu symbolique bi nga xam ne rek moom ngeen di yóbbu. ngeen fa nar a askan bu Sénégal waaye itam may sàkku rek ngeen si gin ñu ba tey mission bi ñu leen dénk xam ngeen ko fàttali leen rek ne njiitum réew mu Sénégal moom Macky sàll ak itam askan wi nga xam ne rek ñoom ñoo fi yeewoo ñépp ñu ngi seen ginnaaw. ñu noppee ci tàggat yaram yegg si nañ ci ponk bu mujj li ci yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. ci la ngeen jëf Macky Sall mi ànd ak soxnaam Mariam Sall dem ca Biarritz ga ca France ne dañuy vacances noppalu ji dégg jàmm journal Les Échos ne nañu dégguñu jàmm ci réew mi musiba mbelengaan mu nekk nit ñaa leen ko yàq ci réseaux sociaux yi nee nañu jaay gi ñu ne dañu ko bëgg a jaay destination Sénégal bu ko Macky Sall gëmoon du ànd ak waa a dem ca Saalum Vox Populi nañu moo taxit kii di Ousmane Sonko njiital Pastef yàq na ko lu nekk moom Macky Sall moo ko nguuram ndax nee na ci jamono ji ñuy jooyee ñàkk kaarange ci réew mi bakkan yi rot sa nit ñiy faatu ci l'accident premier policier bu réew mi moom ma nga ca Fatala ca gaynde ya gaynde gu mag gi di nelaw ca sa ñu bàyyi ci seen ginnaaw réew mu mel ne indi buy folot baykat yu toog dët mu ndaxu jaaxle ci nawet bi ñu yaakaar leen ci njàng mi yaakaar leen ci paj mi yaakaar leen ci sécurité yaakaar leen lu tàggale gonay réew mi ak ñàkkum xëy di chômage ñuy dund ñu malade wal fajir nañu ñàkkum kaaraange mu di insécurité ñoo ngi koy jooyee fu nekk ci réew mi gouvernement bi moom dem ci vacances am moo tax it commissaire Cobra ak alkaati bi di El Capo ñoom far nañu assurer intérim bi ci gàttal ñoom ñaari alkaati yi ñooy xala ci Sénégal guddi yu ñu toll ñoom ñaari policier yooyee di Cobra ak El Capo Le Quotidien mi ngi ñuy wax ku ci nekk ci ñoom fi mu toll temb moo ki mbiram El Capo mi ngi toog di xaar résultat yi war a tukkee ci autopsie bi ñuy def ci ndem ma faati mbay ma faatu woon ca kees ci lay xam ndax dañu ko cay taqal ripp am ndax dañu ko cay setal ka ca des di commissaire Cobra bu Parcelles Assainies moom waa ji mu amuloon ay ñool-ñool mu di docteur Cheikhouna Gueye bàyyiwu ko ba léegi ma moom ca prolongation yee mi ngi xam ne ci journal bi ne mësuta signé benn PV ca police ñiy wax naan dafa signé ab procès verbal ca police ñoo ngi wax lu ñu xamul wal fajir nañu docteur Cheikhouna Gueye bu pharmacie Fadilou Mbacké nee na amul benn procès verbal bu mu mës a signé ca police te it mësuta toog ak wax ji ñaar la ndax ñoom procès verbal bi ñu gis docteur Cheikhouna Gueye na ca na mbir ya ba nangu poñe commissaire Sangaré ndax mer mu mu meroon bi mu ko poñee gaañ fa nekkoon ñoo leen àtte wax na ne ba ñu ko yóbboo police jéggalu na commissaire bi politique bi ak parti démocratique Sénégal mi nekk ci guddi gu bët setagul le quotidien xëy na di ñu xamal ci xëta mu njëkk ni PDS tëdd léegi ak juróomi nit yi Abdoulaye Wade tànn teg leen ngir ñu war a doxal parti bi juróomi nit yi Bara Gaye la Doudou Wade Tafsir Thioye ak Waré Sall ñii yéenekaay bi xëy toppaat la mu ca gis moo di Karim Wade mooy nit koo xam ne lu mu am rek dañ ko koo jox muy pouvoir ko génnee ci kaso bi ba ci mu jiite ko les éco nañu léegi nag na xeex boo xam ne bu taxawul xeexal ko li mu bëgg Akimo Parti démocratique Sénégal am nay kàngam yu nekk ci parti bi yu taxaw temm ngir bañ ko ñoo ngi amal ay daje yu bari ci kër Omar Sarr ak it ci kër maître Aladji Amadou Sall am nay responsable yu bari takawe yu nekk ci biir Parti démocratique Sénégal fas nañu yéene wàll si ci xeex bi ñuy xeex ngir PDS bañ a mujjee ci loxoy Karim Wade Walfadjri mel ne ku koy dëggal di ñu wax ne crise am na ci biir parti démocratique Sénégal cadre ya ñoo ngay kompaloo condoléance di tekki njaal ci tubaab soleil national nee nañu njabootu Jacques Diouf gi ñoo ngay wéy di ko nangu ca Paris njiit réew mi Macky Sall yónnee na délégation bu mag ca Paris ngir ñu dem jaale jil ko njabootu Jacques Diouf moom dem si yàlla Jacques Diouf soleil mi ngi ñuy wax ne ab néewam dina yegg si Ndakaaru alxames ca ngoon ca ëllëg sa di àjjuma ji ca lañ koy defal levée du corps ca hôpital principal ndar ga mu fekk baax la ñu koy denc ñu jàpp njàmbur fépp la journal l'observateur xëy raatale ngir defu gëstu di enquête ci lii di bourse familiale yi bourse familiale yooyee ñu indi ci réew mi ngir ne dañu ciy jàppale ñi seen loxo jotul seen ginnaaw daanaka bourse familiale yooyee saafara su jur jàngalo la ndax li mu yàq ci kër yi mu ëpp fuuf la mu fa waroon a defar effal di kenn ku dëkk Louga ne waa l'observateur moom mi ngi réccu bu baax baax li mu bokk ci bourse familiale yi keneen ku ci bokk te dëkk ca Ndar ne moom bourse familiale yi da koo gën a yokk ak walakaan Awa Dieng ca njaarim la dëkk moom mi ngi wax ci l'observateur ne fàttalikuwul kañ la gëj a fayeeku bourse familiale am wàll observateur wëlbatiku laaj professeur Meissa Ba bu ab économiste la nan la gisee bourse familiale yi mu ne leen bourse familial yi arnaque sociale la Mouhamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bi dig leen daje ngoon ci kàttanu yàlla jàngeen jëf ci seen safo jàngeen jëf ci seen cofeel duñu tàyyi di ko wax